acca sëñ bi ñu bàyyi la nga nuyoo euh, maa ngi nuyu mboolem kuy jàkkaarloog suñ jëmm mhm. moo xam yaa ngi ci réew mi wala yaa ngi bitim réew di ñaanal ñëpp yàlla ñëpp am jàmm yàlla ñëpp am tawféex barke Xaadimu Rasuul macha allah sang bi ñun itam ñu ngi lay nuyu bu baax di fay waa seet si tamit ñu ngi lay nuyu ak mbokki internet yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan bu baax a baax sëñ bi tey dama am loo xam ne foofu ma dugg ci muy actualité muy euh, combat bi nga xamante ne bëri na coow lool mu dox si diggante ki nga xamante ne moom moo di euh, Eumeu Sène ak nga xamante ne bi moom moo di Sa Thiès coow bëri lool sëñ bi te lépp loo mas a wax ci combat ma gis ko waxoon nga ma ci Modou Lo ma gis ko waxoon nga ma ci bombardier bi passé ma gis ko maanaam wàllum làmb yàlla daf cee may ba lépp loo ma si mën a wax gëm naa ko te teg naa ci bët combat bi bari coow lool ku nekk naan Sa ku nekk naan Eumeu Sène te ñu ngi woon xam exactement 48 heures moo des ci li nga xam ne moom moo di combat bi ñu ci mën a wax. jaajëf nga woon bu am solo euh, boo xam ne képp koo gis muy dox wala mu toog moom rek lay suivre te loolu lay bàyyi xel muy diggante Sa ak Eumeu Sène ñaari xale yu yaru lañ hmm. ñaari xale yu yaru lañ waaye diggante bii nu toll nii fii may waxee ak yow nii hmm. combat bi bi ma xoolee euh, cinquante cinquante la cinquante cinquante waaw xam naa euh, ki waram moom combat bi hmm. diggante fee suba lay lay lay moom combat bi waaye fi mu toll nii moom dañoo balancé fi mu toll nii ñoom ñoo tolloo. ñoo tolloo ci ci wàllu mystique. ci wàllu mystique. Mm-hmm. ñoo tolloo ci wàllu gàllaaj maa ngi dégg sax am ñu naan saa dañ koo xaw jàpp waaye fi mu nii moom képp ku ci farlu ci ñoom. Mm-hmm. Euh, yaay yaay yaay jël ndam li. Mm-hmm. Euh, saa nag bi ma xoolee dafa taxaw ci chiffre huit. chiffre huit. waaw huit nag moom. bu farluwul dëgg dëgg dëgg dëgg wax dëgg yàlla mën nañ ko jàpp parce que huit dafa bari ay xeex. huit dafa bëri ay xeex. waaw xam mi ngi taxaw ci chiffre quatre. Hmm. waaw huit bi moom boo xoolee jamono yi moom moo xeex waaye euh, ku ñu ci mën a jokk. Hmm. am nañ ay sarax yoo xam ne bu la ko waxee bu soobee yàlla mën na laa orienté ba am ndam. mais sëriñ bi sarax yow da nga cee ci làmb. sarax moom dama kenn ku yàlla bind. Hmm. lépp lu boo ma neexee man bañ mën naa laa a jox dara damay def samay code. ne la defal sarax nangam boo ko defee sa aaju. kon combat bi benn sarax kese moo koy gagné. képp ku ma ci woo ñoom ñaar. Mm-hmm. ci diggante chiffre 4 boobu ak ak mm-hmm. dinaa la wax loo xam ne bu la neexee da nga may avance. Mm-hmm. boo bëree ba daan ba ñëw. moom. te day am ndam. man ngay bool la day am ndam parce que li may wax moom mu du du échappé li may wax mu leer nañ la may wax man du waxantu du ma junjantu. Hmm. dama lay wax dama lay wax lu leer naññi naññi. ah man de wax sax man de loo mës a wax ci làmb moom. Hmm. gis naa ko wax dëgg yàlla. man euh, ku ma ci woo ñoom la neexee naa laa garanteel bi ni koy daanee sax dama la koy wax. waaw bu hmm? fekkee ne euh, mën naa koo tànk Eumeu Sène ne ko ne ko ne ko bu arbitre soufflé jàppal tànk màngam ci nga koy daal. Hmm? waaw man man bu may wax euh, nit dama koy wax lu leer nañ ñi man nit duma ko duma ko junj wala ma koy wax loo xam ne day am sikki sàkk lépp lu ma lay wax rek lu leer nañ ñi lay parce que liñ yor euh, lu leer nañ ñi la loo xam ne lépp lu la wax rek man boo boo ne woon nit dangay dee say boo fay say bor ndax force dangay dee loolu loolu it wax naa ko ay nit hmm. ay nit tawat nañ seen seen seen jegeñaale woo ma ma ne leen jëru ngeen ci sonn parce que day dee. parce que alxuraan karim wax naa ko ay nit ba tàyyi te ni ma koy waxee noonu lay demee. mais sëñ a dee nga ne ko day dee mu dee. waaw koo xam ne dafa war a dee ñu yóbbu mu leer nañ la balaa bis bee del si day day dee te docteur yi duñ la ko wax ñoom nun lekkee sa xaalis lañ xool. Mm-hmm. loolu loolu loolu loolu loolu loolu nga wax ko nga wax ko ko loolu solution solo ndax xala xal mawta wala xayaata Hmm. waaw dee la njëkk yàlla njëkk bind ci dund kenn ku ne bis ba nga war a dee doo ko weesu seconde. dëgg la benn macha allah sëñ bi ñu dem ci leneen loo xamante ne tamit euh, def na euh, li nga xamante ne moom moo di ci euh, internet bi muy Gaston bi nga xamante ne ba mu feebaree boobu ba tey yàlla def mu génn àdduna sëñ bi ñu gis nag coow li bari lool ñu ne Gaston Mbengue dañ koo sànni kortu te feebar ga mu feebaree woon coow li bari na lool ci lool sëñ bi ndax sànni nit kortu mu dee am na sànni nit mu dee am na man moom am la am na kortu yoo xam ne bu la ko sànnee xeetu taab la lay dikkee mhm. waaye wa iyam saska laahu bi durrin falaa kaashifa lahu illaa huwa wa yuridka bi xayrin falaa raadda li fadlihi suñ borom bu la naree lor kenn mënta seemu lor la bu la naree jariñ kenn mënta tee mu mu mu jariñ la waaye sëriñ si ci wax ngir bëgg bës nañ ko bàyyi suñ borom bu tuddee ne diw mii dañ koy sànni kortu te ci loolu lay dee kenn mënu laa dee hmm. ndax man gis naa fi kilifa goo xam ne dañ koo fetal bu faatu te dañ koy fetal boobu yor na jaaro boo xam ne bu ko bu ko takkee fetal du ko dugg Mmh. waaye daf ko fàttee takk loolu mooy moo moo moo mooy moo moo war a tax nit ñi xam ne nit ki fu mu nar dee rek àppam bu jotee rek fa fa lay dee moom àpp bii moom la yàlla tuddoon ne ci ci lay faatu bu ko defee nag nit ñi nañ ci wax lu rafet mmh. te bàyyi promotion yi ñu bëgg saa nit demee ndax yooyu amul sens kilifa la te boroomu njaboot la mmh. loolu ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana hmm. lépp lu mu defoon ci lu baax yàlla na ko suñu borom fay lépp loo xam ne defoon na ci ay rëcc-rëcc yàlla ko suñu borom jéggal saaxiran wa baatinan ak sëñ Tuubaa euh, nit ki nan la mën def ba mucc ci nga xam ne moo moo yenn liggéey yi lu ci mel ne ay kortak ay yenn affaire yi nga xam ne nit ñi dañ koo jël léegi euh, euh, yàlla daal moom ku ku mu wammat ba nga ñëw ba agsi ci man mu defal la juróom-ñaari miski nga lekk ko juróom-ñaari lekkin képp ku jëm ci yow day faatu. Hmm? waaw waaye koo képp koo xam ne liggéey nar na laa jàpp rek doo agsi ci man wala koy defal waaye képp koo xam ne agsi nga ci man ba fëgg sama buntu ma jox la ko nga lekk ko juróom-ñaari lekkin ma liggéeyal la ko juróom-ñaari fan kooku moom pare na képp ku jëm ci yow day faatu ak ku mën a doon la. est que waaw ku mën a doon. sëñ bi ñu bàyyi la nga tàggatoo. jaajëf ñu ngi leen di eh, jaajëfal eh, waa seet si ma mm-hmm. di leen di leen di ndokkeel di ñaan sit bi yàlla na ko sa borom yokk bam bam bam raw Al ak ay ay ay BBC yàlla mën na ko te ñu ñu ngi koy ñaan yàlla. incha allah yàlla def barke sëñ Tuubaa. jërëjëf sëñ bi. Setsima TV. l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la TV xibaar yu wér te